Euh, tey euh, taxaw seetlu bi du lenn lu dul jëf ju ñaaw ju bon ji nga xam ne nemmeeku nañ ko te tamit ñu gis ko ci kii nga xam ne moom moo jëm ci Kouthia ñu gën koo miin ak ki nga xam ne moom moo di Pape Cheikh Diallo ñoom ñaar ñi jamono bii ñu toll nii mën nañ ne réseaux sociaux yi ngànk nañ leen lool lool sax te loolee buñ ko waxee yaakaar na photo bi ngeen jàkkaar lool exemple la ci li nga xam ne moom lañ bëgg waxtaanee ni ki tey di sàkku nag nga teewlu video bi bu baax a baax a baax te tamit nga bàyyi ko xel ndaxte jàpp nañ que ne dina la jariñ te ñeneen ñi nga xam ne tamit dañuy jëf-jëf ji ni mel mën nañ see bàyyi xel bu baax a baax a baax loolu nag moom moo tax nit ki tey ñu fas yéene see dikk def si taxaw seetlu ci ki nga xam ne moom moo di Pape jàlloo ak ki nga xam ne moom moo di Kouthia ñu gën ko miin ci sàmba Sine seen diggante ñoom ñaar ku ci nekk mu ngi tëdd feebar doomu aadama yi ñu si bari amuñu xelum ñaan ci suuf yàlla faj saafara seen tawat ji nga xam ne moom lañu nekkee am si ñoo xam ne dañuy profité woo ci tawat gi nga xam ne moom la ñuy tawat di ci yëkkati ay kàddu yoo xam ne day mel ne dafa am lu ñu leen yéene te loolee moom mooy li nga xam ne loolu ñëpp remarqué te nekk loo xam ne lu njëkk ci ñoom la ndaxte gis nañ fii ci réew mi di Sénégal ñi nga xam ne ñoom ñoo di célébrité yi képp koo xam ne am nga si tuuti jafe-jafe wala képp koo xam ne tey am nga si ci ay xat-xat yoo nekk la ñuy gën a remarqué gën kaa nemmeeku du lenn lu dul këne internet yi dañuy dikk mel ne koo xam ne dañ la yéene mbir mi la dal yéene lañ ko mën a tuddee ndaxte tamit ki tëdd feebar amul lenn lenn loo ko mën a yéene amul lenn lenn lenn loo man si moom lu dul di jël ay photo di ko tagge pour wane ne kii nii kat dafa mel ne koo xam ne rek dafa génn àdduna ci mbir moomee loolu moom moo tax ñu dikk fas yéene see def taxaw seetlu ndaxte yaakaar naa moo ngeen nemmeeku ci miniature bi nga xam ne sax moom lañu dugal ndaxte tamit ñoom ay sénégalais lañ comme sénégalais yëpp bu fekkente ne dafa am lu leen dal am nañ ay mbokk yoo xam ne ñoo leen gën a jege te mbokk yooyu gis ñu kenn koo xam ne tey dafa génn ci réseau yi di fësal mbir mi nekkul ne tey dañ leen doon sàkkul li nga xam ne moom mooy ndimbal parce que gisuñu ko muy Pape Cheikh Diallo muy Kouthia gis nañ nag benn waay bu nga xam ne génn na moom it yëkkati ay kàddoom jëmale ko ci ki nga xam ne moom moo di Kouthia donte la yëgle na xamle que ne feebar na mais nag liñ jàpp mooy mënoon naa yem foofu beneen bi tamit mooy jërul woon mu koy génnee ci réseau yi di ko wax bu fekkente noonu dafa génnoon pour wax ko pour sàkku ndimbal su boobaa mën nañ ñeen ndimbal li moom moo tax mais yëkkati ko wax noonu rek en tant que koo xam ne tey peut-être information bi ngay jàllale wala koo xam ne tey xibaar bi ngay jàllale rek loole day nekk loo xam ne tey bu ko defee ñu baree baree bari mën nañ see bañ a gis li nga xam ne moom moo di seen bopp ci mbir mi moo daal di rogalaat ba yegg si ki nga xam ne moom moo di Pape Cheikh Diallo moom tamit gis nañ depuis fan yi ñu génn yépp ñu si baree baree bari dem ba jàpp ne sax dafa farfaatu maanaam ki nga xam ne tey dafa dikk nekk gan ci réseau yi te xamul kan mooy Pape jàlloo en tant que ay titre ak ay miniature yi muy taseel moom day jàpp ni kii moom génn na àdduna te fekk na ñenn nag ci internet yi ñoom ñooy def li ni loolee moom moo tax nag ñoom ñaar ñi amoon na beneen taxawaay boo xam ne moom moo warta si taxawaay boobu ci lañ fa séenee daal di ñëw te muy nit bu fekkente ne dafa nekk ci ab diggante maanaam moo xam ay jafe-jafe la wala mu nekk ci xat-xatu àdduna war nga kaa mën a ñaanal ndaxte ñaan yooye moom mooy nekk li koy jariñ même bu fekkente ne sax loraange bu moo daloon ci kawam te tamit beneen bi mooy loolu la gën a soxla te lim gën a soxla nag jàpp nañ nga defal ko ko moom moo ëpp solo que ngay def leneen loo xam ne tey day influencer yeneen i doomi aadama ñeneen ñi sax dañuy dem ba jàpp que ni loolee dafa nekk dëgg goo xam ne tey gu bir la loolu moom moo tax nag ñu war see taxaw war koo jàngat bu baax a baax a baax te mën nañ ñoom ñaar njëkkewuñ ko fi wante tamit duñ ko fi mujjee ndaxte fii ci réew mii di Sénégal daf see bari ay célébrité yoo xam ne tamit ñoom lu ji njaak ñoo di njaak ndaxte nag bu fekkente ne dafa am lu la nit ñi di xaare dafa am lu nit ñi di séentu ci yow ñëpp jàpp ko ne yow boo waxee nit ñi danañ la diglu nga nekk ci sa wér gi yaram di foo di caaxaan ñàkk respecte sa liggéey ak ñàkk respecté sénégalais yi léeg-léeg dana waral bu ñu déggee ne aw ay dal na la ñoom ñëpp dañuy mel ne ku la ko yéene di ko partagé bu baax a baax comme ni nga xam ne nag ñenn ci sénégalais bu ñu déggee que ne tey am na mbégte moo xam ne dal na la comme ni nga xam ne noonu lañ ciy kontaane kon nag bu ñu seetloo dañuy gis que ni ñaari côté yëpp am na wante nag positive bi ak négative bi bu fekkente ne dañ ko jël ci côté bi nga xam ne moom mooy bu positive bi jàpp nañ que ni boobu moom moo gën te muy mbégte ak bànneex bu fekkente ne dal na ci kenn koo xam ne rek ci askan wi la bokk ñu fésal ko partagé ko ndaxte loolu mooy dundal gor bi wante nag li nga xam ne moom la ñu remarqué nekk loo xam ne tey tey tax ñu baree baree bari tuuti ñu am satisfaction ci ñi nga xam ne tey ñoom lañuy ñuy diglu ci réseau yi te lii bokk ci li nga xam ne tey li muy yàq day bari lool ndaxte bari na ñoo xam ne comme niñ ko waxee sànq ñoom li ñuy xool mooy photo bi nga teg li ñu xool moom mooy titre bi nga titre bu fekkente ne nag loolee da leen sa nax bu ëllëgee ak sibir mën nañ koo romb daal di dem parce que tamit dañuy jàpp que ne ñëpp ñoom ñooy am am si ñoo xam ne nag loolee du leen si fekk wante dañ ko liir li nga xam ne moom moo di video yi maanaam mën nañoo dikk liir commencement bi te xamaguñ lan nga bëgg a xamaguñ lan nga bëgg a wax loolee day tax léeg-léeg rek ñu daal di dikk saaga la ci vidéo yi wax la lu bon daal di jàll moo tax nag nit bala nga koy àttee li si baree bari da ngaa war a def le tout pour nga vérifier da ngaa war a def le tout pour nga xool nemmiku lan la bëgg a wax de A à boo digloo ba mu jeex nag bu ko defee li nga bëgg a wax mën nga kaa daal di wax kon nag lii dafa nekk benn phénomène bu nga xam ne mën nañu ni ki démb ak tey ñu ngi koy gis ci réseau bi te mu nekk loo xam ne lu ñaaw a ñaaw la ndaxte ñoom bu ñu fàtte dañoo yor ay njaboot bu ñu fàtte dañoo yor ay waajur te ñoom it ñu ngi ci réseau yi di gis li ni mel mel ni seen doom dafa génn àdduna loolee nekk loo xam ne tey lu ñaawa ñaawa ñaaw la ba tax ñuy di demande di demande bu baax a baax ñun ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi ñu xoolal suñu nekkin ci li nga xam ne moom moo di réseau yi ndaxte tamit yenn yi bëgg ay vie jaru ko lenn li tamit bëgg gis ma jaru ko ndaxte loole fii lay yem kon nag loo ci mënti def ak loo ci mënti taxaw pour que ne na gën a rafet pour que ne na gën a baax mooy li nga xam ne moom moo gën ndaxte ñi nga xam ne ñoom lañ taf nii am nañ ay mbokk te tamit am nañ ay am di jàmm am nañ ay àndandoor kon di leen di jaajëfal bu baax a baax ci topp gi safa gi ak faale gi seen seen YouTube Partout TV